ginnaaw yàlla moo nu boole jaarale ko ci Yaya Diallo honorable député maa ngi koy nuyu macha allah misaan li tax ma jàpp ko man naa ni dama am bis muy sama anniversaire le 1 avril misaan yëg ñëw yendoog man ba jant so kon man su ma dee gor bu ma misaan tuddoowul woon bis sax bu war naa ñëw jàppale si ko ba may ko ndam misaan doomu Tiwaawan la Mbisaan produit Tiwaawan la ñun waa Tiwaawan gépp maa ngi lancé autorité di ko njëkkee ci de la muy Mamadou macha allah monsieur le maire Demba Diop si le maire ñu ngi lay woo nga jàppale Mbisaan doomu Tiwaawan la ñu ngi woo Mamadou Diagne si Mbeng koy woo mu ñëw Mbisaan doomu Tiwaawan la ñu ngi woo sama leader ci Tivaouane ak ci département de Tivaouane muy Ablaye Ndiaye Ngalgu ñëw ngeen jàppale Mbissane doomu Tivaouane la di woo honorable Yaya Diallo di woo Matar Diouf di woo Ablaye Mbuub di woo Yélamine Gumbala di woo sama leader sama xarit sama directeur ñu di ko wax Ablaye Dieye président sigi jot na directeur AIBD maa ngi lay woo ci département de Tivaouane nga jàppale Mbisaan ndax Mbisaan doomu Tivaouane la soo ko jàppalee jàppale nga Tivaouane yépp di woo sama mbaay sama xarit koo xam ne ku tudd sport sa xel dem ci moom muy Matar Ba sama mentor sama baay sama xarit muy Matar Ba ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale Mbisaan doomu Tivaouane di woo Mamadou Ngom ñaa le jeune sama xarit DAS Sport di woo directeur Senelec Papa Demba Bidey sama xarit ki nga xam ni ku jàppale président de la république ci Kaolack ak ci Sénégal directeur Senelec ñëwal nga jàppale Mbisaan doomu Tiwaawan di woo sama xarit muy Omar Bawo Junior taalibe Serigne Mountakha Mbacké borom fasu gañaay ñu ngi lay woo nga jàppale Mbisaan ndax Mbisaan doomu Tiwaawan la ngi woo autorité nekk ci dëkk bi yëpp di woo Seynabou Gueye Touré di woo euh, honora euh, monsieur le monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall di woo képp ku dëkk Tiwaawan ngeen ñëw ñu ànd booloo jàppale Mbisaan doomu Tiwaawan la doomu Sénégal la te sama la te nit ku baax la nit ku bëgg Tiwaawan la ndax man benn objectif rek la am man ku bëgg Tiwaawan ma bëgg la ku bëggul Tiwaawan bëgguma la ak koo mënti doon tey dama fi ñëw daal macha allah ñëw boo xam ni kontaan laa fi def di gërëm Soro Malick sama nijaay di gërëm Abi di gërëm Mandaw Kase di gërëm Njatli di gërëm askanu kër Makumba yëpp mooy ñi ci ginnaaw ñëpp samay rak samay doomu nijaay samay xarit macha sant naa ñëpp daal kontaan naa may laata benn message ñun ay doomu Tiwaawan la li may woo mooy ñun ñëpp ñu booloo fulla fayda am jom gëm sunu bopp fonk sunuy ñaari waajur ñu xam ni politique fi ko fekk fi leen koy bàyyi waaye mbok ñun ñoo ko moom xaritoo ñun ko moom koñ bi muy kuri may lancer benn message politique mu yàq sunu koñ politique bu mu yàq suñu koñ ñun ñëpp nan mbooloo xam ni benn objectif rek lan am xam ni Tiwaawan man su ma demee ma waa Koumba wóolu ma dénk ma lu ñuy wax relation de l'extérieur maa ngi ceeg Ablaye Mboum ànd ceeg président yëpp di doxal kon macha allah dinaa woo waa Kuli ci jàmm woo waa Tiwaawan ci jàmm ndax xalifa bi loolu la fi santaane sama sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha si loolu la ma wax ni ma del woo ñëpp ci jàmm yow bu wax lu bon bul lox lu ñaaw yéeneel ñëpp jàmm xam ni mbokk dafa neex rawatina ñu bokk Tiwaawan mbisaan yan na ko yàlla may ndam maam na ku may ñaar ñu may sant muy borom télé bii jóge Thiès ñu di ko wax Papa Doumbouya day sama xarit yàlla boole nu muy xaritu directeur aéroport Papa Doumbouya nit ku baax la mu dëkk Thiès investir lu ñuy wax euh, restaurant investir école investir télévision investir site internet kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu xam ni ku mel ni Papa Doumbouya Sénégal gii la dëkk bëgg dëkk bi bëgg Tiwaawan bëgg Thiès bëgg senegal bëgg daal ngeen xam ni kooku sama xarit la muy PDG Papa Doumbouya yal na ko yàlla defal jàmm yàlla def ko ci milliardaire Serigne Touba yi di santaat télé bi nga xam ni sunu télé la ñun waa Tivaouane ñoo ko moom muy GP TV aw ma seen fay lu ma xewle ngeen ñëw jàppale ma ba yàlla def ci jàmm kon man yéen laa war a gën a njëkk a sant ndax aw ma kurul yéen bañ a ko ba ñu bëri naan télé bi daal télé Koumbaanta la ndax Koumbaanta gis na lu mu xewle macha allah GP ñëw waaye yéen a yay ndax xam ngeen kan mooy Koumbaanta Koumbaanta xam na kan mooy yéen ñuy woo ñëpp nag lu waay xewle na woo GP TV ñu ñëw couvrir ko ndax ñoom duñu parparloo duñu dugg lu seen yoon newul liggéey la ñu xam ñàkk tedd di gërëm seen PDG Arfan ndax waroon naa ñëw fii sant naa Tiwaawan yëpp doomu Tiwaawan laay doon ba ilaa yow mi nii doomu kuli laay doon ba ilaa yow mi diin man Koumba Anta meilleur influenceur di mouvance présidentielle di ñaanal sama candidat Amadou Ba yal na ko yàlla may ndam de la part de Matar Ba de de la part de Ablaye Ndiaye Ngalgu de la part de Papa Demba Biteye de la part de Omar Bao yan na Amadou Ba doon cinquième président fii ci Sénégal ndax moom laay promouvoir moom laay àndal te man dama ñeme féete ragal féete nag day xañ a wërsëg di ñaanal sama yaay yàlla na gudd fan fekke sama njariñ santaat ñëpp rek gërëm ñëpp biir Tiwaawan Mbisaan yan na ko yàlla may ndam